wasilati mooy sayidi cheikh mata daam cheikh saaliw am na ñu bëgg borom jàppandal borom daaru minam borom alimul xabir borom daare daaru tansiir borom jannatul maxwa sopp cheikh mata daam sëriñ saaliw man li sayidi wasilati mooy sama bi Cheikh Mourtada Cheikh Saliou Cheikh Mourtada Serigne Saliou ndëndal ngërëm naa ko tëggal ndëndal ngërëm naa ko tëggal ku xotti baax ka tey fësal ci saab galañ delloo njukkal Cheikh Mourtada Cheikh Saliou ndëndal ngërëm naa ko tëggal Cheikh Mourtada ana ñu bëgg borom dina ko nax waa di bind ñu mebbe Cheikh Mourtada Cheikh Saliou mbëndal wéram naa ko tëggal ku xotti baax te tey gësal ci sab garam delloo njukkal Cheikh Mourtada Cheikh Saliou bu dee ku baax yeyoo nga way ku xotti baax mooy gën a yey ku xotti baax mooy gën a yey yow man nga way xëy li ci xew lépp xam nga ko ndax ñu ne yàlla 2008 ba tey am na at moo xam danoo ñëw fii def fi fukki fan ak juróom-benn doog a matal liggéey bi am na at moo xamante ni def nañ fi juróom fan ba juróom-benn fan dañ fee bàyyi liggéey bi dem dikkaat ren nag yàlla dimbali nañu ci benn fan lañu sëriñ bi baaxe ñu liggéey liggéey bi loolu ak cant la ñu lay ciy sant bu baax nag. di sant nag mbooloo mi xam naa sëñ sàmba bee dana ci ñëw sëriñ bi nag wax na ni kenn ku nekk ci yéen moo la waroon fekk fa nga toog mu nuyu la nee na moom moo waroon sàkku ñaan ci yéen moom moo waroon tàllal loxoom yéen ngeen ñaanal ko kon nee na li am solo rek nee na li am solo mooy ñëw ci woote bi te nekk ci ndigal nee na loolu mooy li am solo kon Mbàkke sa mbooloo mii day Sëriñ Modou nee na sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax gis na pas-pas bi gis na pasteef bi gis na dogu gi ñu dogu ngir jëfe ndigal li man day Mbàkke am naa ci expérience bu ma ci dund ndax ñi ngi nii toog di ma dégg bi ñuy xëy di dem tool ku ma ci ne kaay dem ci waañ wa nga ne ma ca tool ba laa jëm kon dafa mel ni ñoom ñaqali sëriñ bi ca tool ba dem fa mu gën a méttee moo leen gën a loon loolu nag Mbàkke dañ la koy seedeel pas pas beeg Pastef bi sëñ Modou neen na sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax ba mu xëyee ba tey moo ki yéen kàddu gu ne yëkkati na ko ji leen ci jox ndigal ngeen di ko jëfee ba mu ko daan defit jëmm jii rek a taxoon mu di ko def kon Mbàkke mbooloo maa ngoog leneen li ci topp mooy dafa am kuréel boo xamante ni dafa jóge Louga tuddee seen bopp soldaari xel koom naam gisante woon nañoo sëriñ bi waaye dajale seen addiya teg ko ci loxo sëñ Masamba Pape Samba Louga addee jaa ngi nii Mbàkke ñoom nag nee nañu sëñ bi nee na addee ji mën naa dellu ci liggéey bi loolu nag loolu nag dunni guleet dunni guleet ndax ñun day bañ gisee jëmmam ji ba tey addee juñ ko jox addee juñ ko jox daf ñu naan addee ji am naa sañ sañ yu jëfandikoo ko waaye naa leen ko joxal sëriñ bi mu defal leen ko ci liggéeyu sëriñ bi kon nag loolu Mbàkke mooy ab ànd jërëjëf soldaar yooyu wax nan ni danoo fas yéene ànd yow ci liggéey bi te nee na nangul nga leen ko kon sëñ Pape Samba soldaar yooyu wax leen ni leen sëriñ baa ngi nii jot na addee ji te nangul na leen seen yéene ci liggéey bi ñu bëgg a liggéeyal sëriñ bi ci tool yi beneen bi ci topp Mbàkke sa daayira yi ci yi ci dëkk bi yëpp ñëw nañu ci Sénégal du lim kenn ñëpp ñëw nañu kenn desut kenn desut waaye jëwrinu Cheikh Béthio ca Thiès ca sa kër ga ca Thiès miin nga ko lool Mbàkke miin na kër ga lool teew na ci teewaay bu rafet ñu di ko sant di ko gërëm ndax loole muy def kat nun ñii la waroon kon sant nan ku baax ci tur sañ moo jaxate mbooloo mi nag Mbàkke santaat bu baax rek di la ñaanal nga yàgg fi lool te wer am naa nag yóbbante buñ ma yóbbante ku ñuy wax sawru si la wax na ma ko ñetti yoon te ba ma ko waxee àll la ma ko waxee yóbbante nag àq la nee na danoo bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci sa jëmm jii ci tool yii te liñ lay ñaan buñ la ko ñaanee nee na mën nga ko te nee na danoo bëgg nga defal leen ko nee na ñoom nee na danoo soxla euh, euh, dooley poos dooley poos noonu la ma ko waxee nee na danoo bëgg nga ñaan sa waajur mu defal leen dooley poos ngir ñu mën a liggéeyal Serigne Touba ci sa jëmm ji ci tool bii waaye nag waaye nag waaye nag waaye nag mëneesu la tontul sëriñ bi waaye sëñ bi wax nañu ci màggal gi ni tàll say loxo ñu ñaanal la day baax na lool waaye li gën a gaaw day mooy liggéey bii dukk-dukk bi ñu dukk-dukkal sëriñ Touba ñaq wi ñuy ñaqal sëriñ Touba ñu di ci fas te fàttali woon naa leen ko bi ngeen di dem tool tey loole sëñ sëwru mel na ni kàddu googee kàddu googi dendal nan wetam xanaa rek ñu jox sëñ Masamba Njaay Béer mu sànn ci kàddu yi nga xamante ni mooy kàddu mbooloo mi waaye bala moo sànni kàddu Mbàkke te loolu damay jël sëñ Modou mii ak sëñ Jili Njaay mii ñu seede ko ci taxawaay sëñ Masamba Béer mii ci xelkom gii ndax war naa toll juróomi at ba ci juróom benn at ci ren saa yu jubee xel kom daf ñuy woo ñu dem ca dëkkam ba mu defa jëf-jëf ju rafet dafa joxe at joo xamante ni macha allah jëf joojee nag boo teewee ci kanamu mbooloo mi war nañ koo leeral mbooloo mi ndax lu baax kat da nga koy siiwal ndax keneen mën caa roy jërë ngeen jëf Mbàkke sant nu baax gërëm nañu waaw sëñ Moustapha Boye bi ma sëggee ci nopp sëriñ bi léegi ci loolu lañ doon waxtaan sëñ Basiru mii dana ci ñëw naam ñaanaloon nañ ko ci biir tool bi ñëpp toog nañu ñu ñaanal ko waaye des ko ñaanalaat incha allah ci ndigalu sëriñ bi te mu jaare ci sëñ Bas Fay mii waaye jàmbaar la woon dama wax gars yi ni leen sëñ Moussa booy day bu ne tëll bu la fekkoon sa toogaay rafet da ko gën a jekkalaat jëmm ju doon soññe la sunu mag la woon sunu xarit la woon ku bëggoon sëriñ bi la ku doon dund sëriñ bi la ku doon dundal sëriñ bi la waxtaanam bépp sëriñ Tuubaa la woon waxtaanam bépp sëriñ Saaliw la woon waxtaanam bépp sëriñ Mursa sëñ Mursalaa mu sëñ mii la woon yàlla na yàlla yokk ay leeram sëñ Bas dana ci ñëw ñu leen di sant di leen di gërëm dafa xaw guddi te yitte yi dafa bari ñoo ngi jox kàddu gi sëñ Masamba Béer mii mu yëkkati kàddu mbooloo mi